waaye wax sëñ Moussa. waaw. ki nga xamni nak mom moy euh mooy ja eh, daaj dëpp gi nak waaw ñu jëm ci bobu ah sëñ Moussa sëñ Moussa Saya nag Balla Gaye numéro 2. combat boobu si Ibou. nee bobu boobu am na am na mbër moo xam ne bet bobu baaxut ci mom ha arrangé ko dafa lendem deug la. waxat naa ko dama koy waxat mais sëñ Ibou. waaw sëñ Moussa. dafa ñaari bari dañoo dem Côte d'Ivoire waaw kii dafa dem Côte d'Ivoire kii dem France waaw ñu laqtu ba léegi seen entraînement cent pour cent waaw feeñagul waaw ma ci siyaara jili Wow, jili kan borom wow waaw borom wow. waaw wow. na ma bu combat yi jale waaw boo xam ne lépp luñ daan ne mën nañ ko wonne waaw ma dina ma yónnee lu bëree bëri insha allah ci ñaari Wow, yi waa Wow, Moussa waaw waa jili jili la Wow jiili jiili la. jiine la <laughs> de. moom bu la xelloo rek am na fu mu ko teg. voilà. ma ko di baal àq aussi di ko baal àq. ndeysaan. di ko nuyu au passage di ko ne eh, sëñ jiili maa lay ziar. Mhm. maa lay nuyu baax a baax di la baal àq la baax sama frère boobu. dëgg la ku baax. sama waay la sama kon sama sama sama wëllëre la. dëgg la. man na allah. nit ku baax a ngi doon la di sih si fant Balla numéro un ndax su ma numéro un xam ci Balla lu bare bare bare bare loolu de am na moom kon nag yaakaar naa ne bu waxee loolu rek am fu ko teg la waaye sëñ Moussa ak ah Moussa combat la wax ci la ilaha illallah humiliation ci lamb ci combat Moussa ku ci nek da nga ñew lelu dëgg la waaw. kenn may xam nga demal ne kër combat woo décision la. dëgg la. combat détermination la. Mhm. lamb la joo xam ne kenn ci ñoom bëggu sa morom daan la. déedéet. kii dafa daan kii pour kii dafa daan kii 1-0. Mhm. ne ko damay ñëw defaat le 2-0. dëgg la. kii ne ko 1 moo fi am. Mhm. ndax la woon doon wuli na. dëgg la. kon nag la kii nga xam ne mooy le 21 juillet. bu aar bi suulee ba gën seen diggante. waaw. moo leen di àtte. la ilaha illallah waaye li ma la mën a xamal mooy. waaw. sëñ Moussa ay rongo yu bëri nañ tuur. allahu akbar. sëñ Moussa. waaw. Euh, yërëm na mbër ma ñuy dàq mu génn saako ya. la ilaha illallah. foofu laa yem. ah. arbi soufflé ñu wacc balagay wacc tafatin wacc Tine wàcc mbër mi gën a gën njëkk a gën saako yi Serigne Ibou yërem nako ko. Serigne Moussa yërëm naa ma ñi dakk bu jéggi saako ya. la ilaha illallah. ñu xex ñu humilier ben mbër. oh. la ilaha illallah. tey. Serigne Ibou. ibu Serigne Moussa. Ah, gars yi gars yi xamna li bokoy wax. waaw. gars il faut ñuy mocc ay tangal pour seen xol yi. waaw xam nga sëñ xam nga sëñ Moussa. waaw. dama ko waxoon ci diggante Boy Niang ak Modou ak Modou Lo. may tànkaafu rek combat boobu. waaw. nee nañ combat bu ay rongo ñu bëri nañ tuuru. dëgg la. waaye yaakaar naa ne keroog ba ñu dajee. Mm-hmm. ma ne leen combat boobu bu leen ci dàq kaw. dëgg la. yaakaar naa ne keroog ku ne gis na xam ne Boy Niang ko kaw. wallaay dëgg la. mu daanoo wet. dëgg la. sëñ naa loolu leer na nañ. dëgg la. waaye li ma la mën a xamal daal mooy baal bi di soufflé. Mm-hmm. ci diggante Balla Gaye ak Tapha Tine. dëgg la. mboolem ko xamna ne yaa ngi yore cardiaque. teel a génn stade bi. dëgg la. mboolem ko yor traction waaw. teel a génn stade bi. dëgg la. mboolem ku defet mënut a défé hmm, teel a génn stade bi. la ilaha illallah. da nga naa ne buñu bëré bëree 5 minutes hmm sey Moussa. waaw. dina am mbër moo joy ne té té té té ak liñu entraîner yépp ak li ñu entraîné yëpp. waaw. du ñu bëree cinq minutes sëñ Moussa dina am mbër moo xam ne ay supporters dañu jooy. laa ilaha illallah. ndax mun na xeex. waaw. ñu am fuñ ko yegg. waaw. bu xataraayu. kaw hmm. sax mun na am ci boobu combat. Oh. te boobu boobu day fekk ñaari mbër yëpp seen xel yi ubbeeku. waa sëñ Moussa jooy dama ne la. waaw. ñaari ku ci nekk dafa am loo sa morom. dëgg la. lu la waaye mun di wax ci àdduna bu al bi soufflé. Mhm. diggante Balla ak diggante Balla ak dina tàng ci mais si Ibou. waaw sëñ Moussa waaw. dafa am lu ma bëgg a laase Balla Gaye de. waaw. xam na ay supporteurs am nag du euh, boo leen ko waxee duñ ko gëm. waaw. mais wallaahi al asim. waaw. sëñ Ibou yàlla rek a xay kii daan. waaw néew ma Balla Gaye mënul daan tafaatin wala tafaatin mënul daan Balla Gaye waaw mais bu fekkente ne li ñuy wax la Balla Gaye bëreesi mu tafaatin dafa ragal Balla Gaye waaw barke alxuraan mu ngi nax boppam sëñ Moussa waaw lambu jooju noonu amul kenn ku ci ragal sa morom la ilaha illallah buñ ko bu ko dama décision la waaw combat détermination la la ilaha illallah combat la boo xam ne teg jeexal la ku ci nekk ñoom da ngaa teg jeexal. Balla dafa teg jeexal. dëgg la. ndax bu daanoo dem retraite. dëgg la de. dafa teg jeexal. waaw. ndax bu daanoo bëre jeg ni mu bëgg te bëreel. dëgg la. ndax deux zéro. Hmm. yaakaar naa ku la ku la ko ku la def yaa moo mën. dëgg la de. waaye itam un zéro. Hmm. un un. waaw. kooku jëflanteel xamal ne euh, euh, mënoo ko ndam demul ndam demul ndam. waaw. yéen a yéen a kii bu daanoo hmm. su ma doon moom damay tekk sama ngemb dëgg la waaye kii tam bu daanoo hmm. sëñ Moussa waa sëñ Moussa dina métti ci moom trop wallaay dëgg la moo tax combat la boo xam ne ñoom ñaar ñëpp ci nekk da ngaa teg jeexal dëgg la waaye cinq minutes boobu ñaanu ma yàlla ñu bëre cinq minutes laa ilaha illallah bu ñu bëree cinq minutes sëñ Moussa émilias tam ba may bañ dina ci am dina ci am direct mun na caa dëgg la sëñ Moussa kaw mu naan ci boobu ko ba boobaa. la ilaha illallah. moo tax bërëb bëre cinq mille bi du ma du ma du ma ko bëgg. teg la. sëñ Moussa foofu laaj côté lamb jooju. Mm-hmm. ba mu gën a jege si. mais sëñ Ibou. waaw sëñ Moussa gis ka ñoom ñaar ba ñu ñëwee ba léegi ba nii kenn mënu leen teg bët ñoom ñaar. ñu ci ay bain de mystique. dëgg la. am na ko si jéggi ndox. maman bi waxoon naa la ko si Eumeu Sène ak ak Sa waaw. yaakaar naa la ma ci waxoon yëpp topp leen topp nañ ñoon indi arrêt vidéo bi ñu déglu ko ñu ñoon sax ñu déglu ko. dëgg la. may la. Eumeu Sène jéggi na ndox. waaw. dem na ci benn pël kili góor kilifa bu ko jox benn benn xabtal. waaw. xabtal boobu noonu xabtal boobu bu ñaalee lamb ji du baax ci Sa Thiès. allahu akbar. nga yaakaar ne xabtal googu ñëw na fa. dëgg la de. xabtal ba mujjee sotteeku. ci hmm. góoru pël la ko jëlee. oh. waaye diggante Tapha Tine ak Balla. Hmm. am na ko ci géej jéggi ndox. mama bi am na ko ci def am na ko ci def sara sarax ci ab ay ay ak ci benn île. waaw. du ma waxagum kan la. dëgg la. sëñ Moussa maa la wax loolu doo waxatu ci làmb. sëñ Ibou. <laughs> sëñ Ibou. sëñ Moussa. mama bii nii. waaw. la ku ne di concentré wu ci sa mystique. waaw ci ñoom ñaar. waaw. Euh, maman bi ci misik bi. nan la demeegul ci ñoom ñaar. am na ku ci xabtal jàppagum. amagul. am na ku ci xabtal jàpp. nii nii nii. xabtal am na ku ci xabtal jàpp ba ba laalalee entourage am. ah la ilaha illallah. tey Moussa wax kan la nag. waaye xam nga dama bëgg rek. waaw. nañ jàpp vidéo bi téye ko. ñëpp rek teg seen bët bu soobee yàlla. dëgg la. li am na ku ci xabtal jàpp ba jàppale ay ay ay ay ay entourage am. dëgg mama yi ma lay wax nii. Hmm. am na ko ci koo xam ne tey am na ko ci koo xam ne tey war waru ñu ci ñu ci ñu ci côté am. mama bi. waxoon naa ko ci combat saa Thiès ak ma seen. tey gars yi sóoraale leen. yaakaar naa sañ na. allahu akbar. mais diggante Tapha Tine ak Balla Gaye am na am na war am na ko ci war war taxaw gum ci kanamam. dëgg la. sëñ Moussa combat boobu naa ci wax loo xam ne dinañ ma boo moytu dinañ ne kii dinañ ma tam sax dëmm boobee am soobee yàlla. la ilaha illallah. nañ dem ba lamb ji a jege si. am na ko ci jéggi ndox. waaw. am na koo xam ne nii jéggi na ndox am na lu mu def ci Iliya. Mm-hmm. am na ko ci koo xam ne bii fi mu toll nii xabtaar na ko. gis mm-hmm. na mm-hmm. am. na ko ci koo xam ne am na lu muy nëbb loo xam ne mu ngi ci moom te waxu ko. te waxu ko. sëñ Moussa am na ci koo xam ne nii ay waroon ñu ci kanamam. li maa la wax ci boobu làmb kañ. la ilaha illallah. gimana sëñ Musa wow ginnaaw bi ñu sant yàlla rek. waaw. dañuy waxaat suñu réew mi aussi. ñu wax ñu fi ñaar ñu ñaar fi jàmm. dëgg la. ndax Sénégal la ñam amuñu fenn. de waaw laay. fuñ di dem ci àdduna buñ génnee carte d'identité carte d'identité na suñu carte d'identité sénégalais la. wallaay dëgg la. moo xam muy Sénégal moo xam moo xam mu moo xam góor la moo xam jigéen nga kon nag seigne Moussa ñun lañu kon bo olof Ndiaye dana sëñ Abdou Aziz tak dafa am lu mo xon hmm so duggé ci gal yor fa ëmb. Mhm. bu ñaan rek bu ñaan ëmb rek mu da nga naan yalla gal gi muccu deug la la bu ko défé ñëpp mëna muccu deug la kon nak yalla ñu ñaan suñu Sénégal gi jamm rek di fi am. amin ya rabbi. di fi ñaan aussi naataange. Mhm. di fi ñaan sutur di fi ñaan hmm di ñaan naal aussi yi nga xamni ñu ñoo suñu jitt rew mi. waaw yàlla suñu bon defal leen jamm amiin yaa rabi. ndax bu ñu amee jàmm ñun ñu jàmm. dëgg la. comme ñoom ñoo jiitu. dëgg la. jàmm rek la ñuy war di seen lañ leen war di ñaanal. dëgg la. ñoom itam ñu xam ne. Hmm. ku boot bu kii rek xaj la bokk. wallaay mënoon ñàkk yaaram. wala te ku boot da boot koo rogante. Hmm. mun na laa mat mun na laa gaji. dëgg la. waaye dangay ngay daal di muñ rek. Hmm. comme ñoom itam nañu xam ne. waaw. population bi yëpp ñu ngi seen ginnaaw. dëgg la. di leen ñaanal aussi ñu yàlla defal leen jàmm waaye ñoom tam nañ ñuy ñaanal yàlla defal jàmm parce que maam Abdou dafa waxoon dafa waxoon na waxoon Abdou Diouf na ko. waaw. nañ lay ñaanal nga am jàmm waaye tam ñaanal réew mi am jàmm. dëgg la de. ndax buñ la ñaanalee nga am jàmm. Mm-hmm. yow tam jàmmal ñu ñu ñu mun a am jàmm. dëgg la. nguur yàlla kenn moomu ko yàlla suñu boom rek moo fi nekk kenn kenn nekkul buur. dëgg la. yàlla kese mooy buur kon nag yéen ñi nga xam yéen fi nekk itam da ngeen xam ne. Mm-hmm. population bi ñu seen ginnaaw ñu ngi leen di ñaanal yéen itam daleen ñaanal ñaan gi mooy leen daleen ñu bàyyi xel dëgg la bàyyi xel bi mooy lan te ne li population bi soxla mm-hmm. dañu fexe am ko mm-hmm. mooy dund gi na gën a wàññeeku bu baax dëgg la transport bi na gën a wàññeeku bu baax dëgg la courant bi ndox mi na gën a wàññeeku bu baax dëgg la ba ñëpp nekk jàmm ñëpp stable mm-hmm. bu ko defee jàmm dina mun a am dëgg la ndax yaakaar naa ne bu sëñ Moussa ku ku ku xiifu rek doon ku xiif daf daf daka su noonu waaye ya, boo xiifee sëñ Moussa yaakaar na ngor dina la topp dëgg la kon nag ñu ngi leen di ñu ngi leen di artu ci loolu di leen ñaan di leen wax ne aussi nañ ñu bàyyi nañ bàyyi xel aussi askan bi askan bàyyi leen xel dëgg la di wax ne Musa? Aha. ñu ngi nuyuwaat waa bitim réew bu baax bitim réew walaay ndeysaan di leen wax ne ñu ngi leen di baalu ak di leen baaluwaat ak walaay ndeysaan di leen wax ne ñoom ñëpp gox gox ñu ngi koy lim Italie France Espagne Angleterre Allemagne Amérique ñëpp ñu ngi leen di lim walaay dëgg la di leen baal ak di leen baaluwaat ak mhm. Iya, wow. bi Moussa ngi nuyu waa suñu fan Wow. nekk fii ci Sénégal. waaw. ñoo xam Wa Gambie la. waa Gambie. moo xam waa Mourtani. moo xam waa waa waa Bargny. dëgg la moo xam waa Casamance moo xam waa Tëngéej. moo xam waa Ndar. moo xam waa Diourbel. dëgg la moo xam waa Kaolack si partout dans le monde fu nekk te di baal ñëpp di wax ne sëñ ñu lay bu di wax Ngoy TV. Wow. même mbéy mi di xoyam xoyamee. mais sëñ Ibou. waaw sëñ Moussa am benn fans bu nekkee euh, états waaw. xam naa dinaa la boole ak moom sax. waaw ñu koy wax Alassane Sarr. Alassane Sarr moom nee na mu ngi ñuy déglu saa su ne. nekk ñu koy déggee. waaw barke dem daal avant ñuy julli la ma envoyé woon message ne ma dama lay déglu yaa ak sëñ Ibou saa su moo tax ma cité ko tur turam. ndeysaan. ah moom moom moom mu ngi ba états dëkk bu ñuy wax Ohio. kon sëñ Moussa ñu ngi koy nuyu baax a baax a baax. waaw ah, ndeysaan. te <laughs> ñaan ko na ko yàlla defal jàmm. amiin barke nente bi. yàlla suñu borom defal ko sutur defal ko teraanga. yàlla suñu borom wàccee ko fa xéwal. dëgg la amiin yaa rabbi. ba mu ñib si ñëpp ba mu ñib si Sénégal gi bokk ak ay ay mbokkam ak képp koo xam ne xaj nga ci. di wax ne sëñ Moussa. maa ngi lay santaat di baax di la gërëm. waay sëñ Ibou jërëjëf yaaram. di la baal waat àq di la baal àq. jërëjëf yaaram. nee na maa ñaari sa ñaari soxna yooyu. ndeysaan. ñaari nga dem gaay maa ngi di wax di ndeysaan. di wax ne ñoom itam ñu ngi ay nit yu baax lañu. wallaay ndeysaan. ndax sëñ Moussa gis naa jàpp gi ñu jàpp ci yow. dëgg la. nañu gën a góorgóorlu te xam ne. Hmm. yaakaar naa ne buñ la tegalee xaalis. Hmm. tegal la or. Hmm. tegal la jamaa. waaw. ah yaakaar ah, naa booy kan, eh, tan looy tànn du jamaa ah, ba. <laughs> wallaay dëgg la. boo sëñ Moussa yi jamaa ah, nga kon ñoom nañ xam ne jàpp nañ nañ la jàpp bu baax a baax a baax a baax. wallaay ndeysaan. nga <laughs> xam ne sëñ sëñ Moussa ñoom fu ñu la tegee eh, fi ñu la tegul yàlla teg na la fa. wallaay bu ñu la tegul fi ñu la tegul tam yàlla teg na la fa sëñ Moussa fi mu toll nii sa sa tur moo ko fay ci àdduna. dëgg la. àdduna partout dans le monde ñëpp fi mu ñu lay bàyyi xel da déglu. dëgg la. yar gi ak teggin ak dal gi. macha allah. ñëpp sëñ Moussa sëñ Moussa ñu koy rafetlu. dëgg la kon bo amé jëkër ju mel non dang koy japp bu baaxa baax fonk ko deug la respect am foko tek ma sha Allah di wax kep ko xamni aussi yaangi ni deglu hmm ci koy travel ak ngoy tv rek hmm ngi ñaan ak jamm di la ñaanal sutura di la ñaanal wër wallahi deug la di ñaanal guddu fan di wax samedi bi di ñew nak Allah dañ leen may ci tabassi bi ñu joggé ni waaw ci xalu tabassi bi lu ci bare bare bare la ilaha illallah ci bi ab bi amna ci lo boko soxé waaw sëñ Moussa boo ko defee sa gerte kenn mënu faa jël jël jur. dëgg la. waaye loolu noonu mu ngi fi am na ci loo xam ne aussi àq ba lay jógee am na loo xam ne aussi te moom loolu rek lay ci loolu rek lay dox. dëgg la. sëñ Moussa kon ñu ñu ngi tàgguwaat ñëpp. waaw. di ñaanal ñëpp. Mm-hmm. di wax ne loo xam ne wax nañ ko fi muy kaddu yoo xam ne ay kaddu yoo xam ne yu xeebu la. Mm-hmm. ñu ngi ñu ngi waxaat ne ñun ay jaam yu xeebu kese la ñu. wallaay dëgg la yaaram. lépp loo fi wax lépp lu ñu wax aussi si muy kaddu yoo xam ne ay kaddu yu rafet la. Mm-hmm. dañu xam di suñu ciogal di suñu mën mën yàlla suñu borom moñu dolel deug la dañu suñu musa ñun ay ay xalé lañu ay ndaw lañu ay jami xeb lañu ñu ngi sakku ñepp ñaan tay ñaan ñepp di ñaanal ñepp deug la wax na sëñ Moussa ñu ngi ñaanal ñu ngi waxat ne ñu ngi ñu ngi ni waat am ko suñu kilifa diine yi waaw mënul ñak ñu ngi leen di ñaanal baax di leen ñaanal guddu fan di leen ñaanal wër hmm dañu na musa nañ leen di baye xel te xam ne ginnaaw yàlla yent bi ñom ñoo ñu fi nekkal deug la da na sëñ musa buñu demee tay baye pétrole di feñ Sénégal hmm ay gaz yu feeñ yaakaar naa ne gannaaw yàlla yent bi grâce seen ñaan yi la. dëgg la. Sénégal dafa am loo xam ne seen benn ko ci àdduna. wallaay dëgg la. kon nag ngeen leen ormal bàyyi leen xel bu baax baax a baax. Mm-hmm. bokk jàngu yi aussi ci lañ bokk ñoom tam ñu ngi leen di ñaanal. waaw leen di ñaanal bu baax. ndax sëñ Moussa dañ ne. Mm-hmm. Sénégal ko bokk rek bokk ngeen ko. wallaay dëgg la. Sénégal képp ku fi nekk ci àdduna rek yaa ak ku ko mun doon rek Sénégal ñun ñoo ko bokk te mun mënuñu koo ko ñaar. wallaay dëgg la. kon yàlla na yàlla wàcc jàmm daa ci fi teraanga wàcc ci sutura amiin barke borom Tuuba sëñ bi maa ngi wax ne asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuh oui pour yow mi nga xam da ngay tok di jaaxle do am benn actualité ci Sénégal wala sax ci bitim réew Ngoy TV da ngay am lépp luy actualité Ngoy TV c'est information des leer nañ Ngoy TV dal, c'est le meilleur bu paré nak yémul ci lol dé lépp luy événement lu ci melni lamb wala cant ak lépp lu mënti doon Ngoy TV paré na pour gunge la wala da nga nek mara bëgg ñëpp xam la xam sa xam-xam wowal gaaw Ngoy TV dëgg dëgg Ngoy TV c'est le meilleur c'est donc abonné sur Ngoy TV di am actualité ak information yu leer service commercial Ngoy TV 77 552 83 82 wala 77 953 33 19 ou 33 868 86 22 Ngoy TV Dal. c'est le meilleur abonné di am actualité ak say information yu leer Ngoy TV dal du ay <laughs>